ila ila ila rafet yi. ak euh, yu rafet yi. ak yu rafet yi. di nga xamal ne dëkkandoo lu mu seere ci dëkkandoom. waaw di xamal ne dëkkandoo lu mu seere ci dëkkandoom. rek mooy li am. loolu rek mooy li am. te loolu la ci yéen. te loolu suñu seex seere ci yéen. ci moom. ngeen wëlbati ko ko ci moom. lii firndeel nag firndeel na ko. kon nag li ñuy def mooy ñaan rek suñu borom. moo nag li ñuy def mooy ñaan rek suñu borom. mu li ko naal mu nekk njariñu lislaam nekk njariñu jullit ñëpp te yàlla woyofal ko eggale ko yombal ko lool sëñ Tuubaa ndax sëñ bi mooy jëwriñ ji di xalifa bi waaye nag dafa jël lépp teg ko ci loxoom te mate ko lool tamit ndax wax dëgg euh, lii liggéey mag ñi la woon maam Cheikh bi fi newoon doon ko liggéey eh, liggéey bu jafe la woon mu indi suñu waajur ñu bokk nekk fi liggéey sama waajur fii la Mourto bo wàcc kon li mag ñi la woon kon bu yàlla defee nag ñu dem bari ko dundalaat nii eh, te moom mii sëñ bi jël lépp teg ko jox xam te mat lépp nga mat mate sëkk sëkk sëkk kon ñu ngi ko jox kàddu mu yëkkati ko incha allah eh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, kàddu yu gàtt lay doon ndax li ma waxoon rek moom moom laay waxaat lu ñuy sant yàlla di julli ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu salaam di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo teew ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ëllëg ak sibir ñoo jàkkaarloo ak ñun ñi ak mbooloo mi di teewlu waxtaan wi euh, bis bi bis la boo xam ne dañ koy def da ci sant yàlla da ci sant yàlla da ci delloo njukkal tam Cheikh Ahmad Bamba ndax xadis euh, ba dafa wax ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri laa Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne ma sunu sëriñ euh, sunu borom lim nu lim nu defal am na fu mu ko jaarale moo tax ñu koy ñu koy ñu koy njukkal di sant yàlla muy bis boo xam ne nag euh, gone yi dëkk bi ñoo koy ñoo koy def boo gisee imaam imaam noonu nga ko waxee xaw a xaw a yéex xaw xaw gee yéex a yëg mooy mooy bis bi gone dëkk bi ñoom ñoo ñoo koy def su ko defee nag bu ko seeni kilifa yëgee euh, ginnaaw bu ñu leen yi ndigal ba jox leen ndigal ba jàpp jàppal leen bis ñoom it dañuy dañuy dañuy jóg sol seen dàll teew ci bis bi euh, bisu teg xeeru xeeru jumaa nag gannaaw dañ ko dañ ko war a woote yëgal ko say bokk say xarit ak ñu nga nga dëkkal far ñu xalaat ne gannaaw kat bis bis bii ñuy def muy muy muy cant di ko di ko romb di jàppaat beneen bis daanaka mën na mën na mën naa ñàkk kon ñu ne kon kon su bis baa na kon nañ ko far def moo tax dañ ko yeex dañu yeex xalaat ne dañ leen di boole dañ ko yeex xalaat moo tax moo tax ngeen yeex koo yëg waaye ñu ngi ñu ngi ñun ñaan yàlla bu ñu demee ba liggéey bi sotti ak jàmm bañ koy ubbi dana doon loo xam ne moom ñëpp koy yëg ah lii ngeen li ngeen li ngeen seere nag sëñ bi maa ngi lay seeral nit ñi itam ay dëkk ay dëkkandoo lañ yoo xam ne dëkkin bu rafet lañ la dëkk lañ xam nañ ne li ñu bokk mënuñu ko séddoo ah, gox bi ñoo ko bokk bokk réew mi bokk lislaam moom mi di imaam Mouhamad Ka ah, bari na luy xew kumbal loo xam ne dama cay war a teew waaye soo ma amee téq-téq rek dama naan dem leen dem leen dem leen ci ah, al imaam ndax fu mu fépp foo xam teew na fa rek mel na ne man maa fa teew. loolu moom am na ay yooni yooni yooni yoon te itam tànk yi du du du tànk yu jëkk tànkam yu jëkk dikk na fi ay yoon yu baree baree baree bëri ñii mu àndal nag ñoom itam duñ ay gan gan ci kër gi ndax imaam Ousmane Ndiaye noonu mu la ko waxee euh, cër yi cër cër yooyu mu tudd moom mooy cër yi yi mën a tudd rek waaye nag bokkul ak cër yi nga xam ne moom xëy na moom moo mënu caa àgg ak imaam imaam Waly mi mu àndal euh, ak sëñ Balla mi mu àndal ak monsieur Ba mi nga xam ne mu ngi dëkk Fass baaba caane waaye moom mooy mu diiru école bi nga xam ne moo nekk caameen euh, moom itam mu teew ci mbooloo mi kon ñu ngi leen sant di leen seereel na bu rafet moom lañ dëkk ñoom itam mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci euh, seen seen ginnaaw saa sunu dañ leen xiir ci rek ñu xam ne li ñu bokk munuñu ko séddoo nañu boole sunu bopp doon benn ñoom loolu ñuy xiir mbooloo mi topp ci seen ginnaaw ñun tam loolu rek la ñuy xiir ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ñun tam mm, suñu xaadim nag noonu ma leen ko waxee Euh, boroom xam-xam la waaye nag yàlla dafa def mu nekk ku modeste koo xam ne boo ko xamul rek xamoo xamul xamoo ko waaye bokk na ci maanaam ci choara yi nga xam ne ñoo daq ñoo ñoo ñoo dàq way fii fii fii ci réew mi waaw du ma wax ne moo fi dàq way de waaye waaye nag xaw ku ko daa dàq way man xaw ma ko man <laughs> xaw ma ko mu jàngal ma alquran jàngal ma xam-xam di sama kilifa mooy bi suñ kilifa génne àdduna moo ko wuutu wuutu wuutu bu rafet wuutu bu rafet bi li ci joxe misaal mooy dafa fab lépp bàyyee njabootam waaw sëñ Cheikh mii di sama mag ak man mi topp ci moom ak sunuy rak daanaka daanaka luy dox koy doxal ñoo koy doxal waaw lépp lépp luñ ko wax ci xalaat ak dana ànd naa ci loola wala mu ne nàngam kat bi fi sëñ bi nekkee moom la daan def kon duma ci soppi dara waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te may ko wér ñun tam yàlla bàyyi na fi nu yàgg topp ci moom sant itam mbooloo mi nga xam ne ñooy dëkk bi ak ñi bokk ci kër gi te dëkkuñ ci dëkk bi ñoom itam bés bi saa bu jotee kenn dootu noppalu ñoom ñëpp dañ koy waajal di ci def lu ñu mën ak lu ñu ak lu ñu mënut di sant sunu bokk yi nga xam ne Tuubaa lañ jóge ñoom itam nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk mel na maam ñoo ko bokk ñëw ngir bis bi ñëw ngir jëmi lislaam ñëw ngir ak bokk kon daal teewaay bii ñu teew yal na ñu dem ba woote bis boo xam ne dañ naan nag jumaa ji noppi na ba dañ ko dañ koy ubbi su boobaa moom bu soobee yàlla kenn du ko yeex yëg ñëpp koy teel a yëg su boobaa di sant itam euh, euh, sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ndax euh, site internet bi tudd As-Samadiyya bu bu siiw la bu am doole la moom moom moo ko ubbi moo ko moom te tasaare lislaam rek moo moo ko tax a jóg tasaare lislaam ak leeral njàngalem Cheikh Cheikhul Khadim moo ko tax a jóg moo bi mu ko yëgee mu sàkk ndaw boole ko sëñ Xaadim ne moom sax moo fi waroon a teew dafa waroon teew ci bis bi ndax li ko ca war xam na ko li ko war ci jumaa jee ñi tàmbali xam na ko waaye gannaaw dafa jàmp nag kon dana dana yabal kii waaye su beneen yoonee nag moom moo jogal boppam ñëw ba ci dëkk bi ndax li ko ca war xam na ko kon ñi gërëm sëñ Abdou samat di gërëm ndaw li nga xam ne moom la moom la yebal di sant ñëpp xanaa jox sëñ bi mu ñaan rek su ko defee ndax day noonu bu julee tàkkusaan rek mën a dem ba ca barab ba mën a mën a mën a mën a taxe xeer wi sëñ Abdou Lahad bii noonu xaar tam agsi na maa ngi fay ci kër ga su ko defee buñ buñ saafoonteek moom rek ñu mën a àndandoo dem dem mën a teg xeer wi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki taalibe yi nga ñuy ñëpp di leen siyaare di leen jot lu am nuyoo noo ngi fii ci Touba Kër Ndongo Kër Ndongo dëkkub sunu maam ju baax sëñ Seex Ka moom sëñ Sàmba Tukulóor Ka ànd ak sëñ Abdoulaye Mbàkke sëñ Moussa sëñ Basiru ñu àndoon nag doon siyaare suñu bokk taalibe yi fi nekk muy sëñ Seex Ka Bintu ak sëñ Seex Ka leen siyaare bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci digg ñu fi dikk muy dikk koo xam ne dikku bàkkeelu la ndax barab bi de sunu barab ndax ki ko sancoon kenn la ci mag ñi àndoon sëriñ bi di mbokkum sëriñ bi sëñ bi uh, defal ko lépp taxaw ko yar ko ba defal ko lépp lu mu defal ñi mu àndaloon muy sàmm lool nag ba la ko sëñ bi la la sëñ bi doon yar ci moom la la ko doon doyee mu ko di sàmm ba fii la ko dundee fii la nekkoon la sëñ bëggoon ci moom moom la mu jëloon ci moom mu mu jaxasoo ñu ni tam def loolu ci nit ñi fii ak dundam gépp fii la ko def nekk uh, ak ku njaboot nag mu fi bàyyi woon nag ñoom ñëpp it tabaarakallaa eh, bàyyi sëriñ mi nga xam ne moo toll ak biñ fi daan dikk moom la fi daan fekk mu nekk fi buñ ko masaan fekk rek tabaarakallaa suñ xol day sedd rek dañ ko waxtaane ndax mu su weesu lam doon waaw dib sëriñ dong di nituk yàlla dong du ko baax du ko bëgg lu baax waaw la yàlla yàlla fay nu leen ñoom ñëpp de leen feex ci baat sàkk ñu tëdd tawfeex sëñ bi yàlla gën a yaatu ci ñoom loole nag bañ demee ñi ñii di suni wala di suni ñu bokk jamono ñu ànd ca ba ni ak ñu ñëpp ñu ànd ci nekk ci lu baax ba léegi ba léegi tey jii moom mbir moom yi mag ñi nekkoon nekkoon lu man a xew rek moo ngi suñu loxo mooy ñu nangu doxal ko ak ñu mën a ko nangut ko doxal waaye lu mën a xew ñoo ci suñu mu suñu loxo moo tax nun ñi fan yëpp nag maag sëñ Abdoulaye mu ñu koy waxtaan ngir bëgg fee dikk far yàlla dogal tey yi bi seen bisub siyaare nu yëg ko nag bàyyi suñu yii yëpp dikk ci siyaare bi euh, kon sëñ bi seex ñoo ngi leen di siyaare di leen ndokkeel ci bis bi tey di ko ànd yéen tey bëgg nag seen taxawaay fii xam ne la mag ñi nekkoon rek ci ngeen nekk la sëñ bi doon dee mag ñi waajal leen ba bàyyi leen ñu dem ngir bëgg lam def ñoom mu nekk ci mag ñi loolu moom seen la nekk te fa tabaarakallaahu yéen a ngi koy dund moom ngeen fi nekk it kon noonu di di ko ànd ak yéen te di leen ñaanal yàlla fan yu gudd lool ba la fi mag ñi euh, samp ngeen dundal ko ba mu yàgg lool ba nekk seen njaboot yàlla na ko yàlla def ñoo ngi leen di bégg lool na gis nañ seen taxawaay ci li nga xam moom lañ seq mooy mooy mooy diine ji mooy taalibe gi rafet ndar dara may ko ci waaw kon nag sëñ am naa gànd sëñ Blaat te di sant bu baax ci loolu bi liggéey bokk na ci li ñu gën a sant it bi ñuy waaj a ñëw la ma sëñ Cheikh mi woo ne mais kat dañ doon waajal teg xeeru juma ginnaaw yéen a ngi dikk nag kon noo ngi leen di nekk lool nag lu rëy la ndax taale gu mat sëkk la ndax dafa mel ne noonu waajalu ngeen ko te yëgu woon ne yëgu leen woon ne noo ngi ñëw mu mel ne bu ngeen yëgee ni yoo ngi ñëw nag moom daa mel ne rek moom da da da dara gi doog a xew waaw ndax daa mel ne rek dara gi doog a xew loolu nag pas-pas bu taale bu rëy lay doon pas-pas bu rëy rëy ndax fee ma loolu tuutut ndax nun dañu ay ndaw àndoon ba ni ay gone ba léegi waaye li ñu ànd ànd ñëpp kenn ku nekk am nga loo doon waaye loolu lu nga xam kenn ku am nga loo doon kenn nekk la sa morom doon la nga ca a yëg yëngu ko loolu mooy tax biñ ni ngi ñëw euh, ngeen ne loolu moom meneen mbir la sant bu rëy rëy am na ci mel na rek daanaka suñ dikki moom moom am na lu leneen lu muy tekki euh, lu woote wala li ngeen woote woon te it lu wér na ndax mu lu ma xew sëñ Tubaa moo fi nekk moom la ñuy yëngu kon nag bu sëb sëñ Tuubaa bu dee dikk nga faw ñu am yëg-yëg loolee ngeen yëg it maag boo maag maag yéen ñoo ko bokk yëg waaw kon nag noo ngi sant baax baax sëñ Abdou Lahad noo ngi lay di la siyaare di sant sa dikk fii te di la di la fàttali ne nga xam ngi sax moom gënu noo la ko xam euh, euh, jëm sëñ Tuubaa rek lañ lay xoole euh, di ñëw lay bàkkeeloo te it am yaakaar ju rëy a rëy ci la sunu maam sëñ Seex doon yaakaar sëriñ bi tam tey loolu nu nekk fii doon doon ay sëtam nga xam ne moom la ñu xoole kon yaakaar yooyu yëpp mu nekk yo amoon yaakaar yaa ngi nun bi fi doon sëñ Tuubaa it loolu lee mu doon yaakaar si noonu ko yaakaar ci yow kon nag fa tabaarakallaa loolu rek ba doon kàddu yi asalaamaaleykum bi rek xanaa ku dul maam Cerno rek fi te maam Cerno ku ne xam moom daawut dem fen dañ ko daa fekk si sëñ Seex itam bu daa siyaare ji itam liggéey lépp da koy fab def ko ci gaal yenn ko ab dongo boo xam ne ñooy ànd buñ fii kër ñu dem mu yëkkati lay wàll kooku mu jox ko ba ba ba ba ba mat mu door wal bi ko mu ñëwee jaar ci ay bokkam daal leen di gis tàggoog ñoom dellu siwaat ba déwénat lu waaw ñibbi siwaat fii waaye lu mos liggéey amul benn dërëm boo xam ni daana ko fi yendoo wala mu di ko fanaanoo ci as as as as as ngàll kay def su jaaree fii dama Tuubaa jaar suñ Fallu dem suñ mënu saa dem ci maam Thierno dem ci Cheikh Anta noonu dem dem gerte ci suñu Mbàkke Buso noonu la koy séddale ku nekk am nga sa wàll ba mu jeex mu door a ñibbi si waat ba demee naat loolu moo doon liggéey bi waaw waaw te it ñooñu itam eh, loolu itam lañ lañ lañ ko jàpp woon rek am na fi ay lettres yu bari yoo xam ne yenn yi mën na koo gis yenn yi mënee su koo gis waaw waaye ñun sëriñ bi rek lañ am waaw sëriñ bi rek lañ am Euh, ku ñuy jàpp itam ñee itam ñu doon jàpp itam Cheikh Issa maam yi sëñ bi yeeg ñooñu ñëpp sëñ bi rek moom moo taxoon gis nañ ne kii moom yàlla dogal nañ ci ñaar yëpp mooy dogal na ci ak bokk dogal na ci ak taalibe ndax ñii seeni maam ñoom dañoo àndoon ak seeni xel gis lu baax dem wuril ko seen bopp ñu nag suñu maam ba muy ànd ak sëriñ bi amul xel bàyyi ma gisoon lu baax yóbbu ko fa waaw maam bàyyi ma gisoon lu baax rek yóbbu ko fa ñii nag ñoom seen bàyyi ñoo ñoo xamal ne lii lu baax la moo gën lañ nekkoon ñu bàyyi ko fa dem dem dem demal seen bopp loolu nag kon nag euh, ma maanaam maanaam ñu sant rek ñu sant rek sant yàlla rek sant yàlla lool waaw suñ laata itam wax dëgg yàlla géej gis gi am na waaye waxtu ne ñu lay bàyyi xel waaw ndax itam ñun tim euh, ay taalibe lañ waaye bu ñu sañoon itam suñu sëriñ yi itam daañ daañ daañ gis si ñoom lu dal suñu xel mm-hmm. waaw loolu tim dañ ko bëgg mm-hmm. ndax itam bu ñu sañoon itam li nga xam ne ñoo ne ci suñ kanam itam mm-hmm. suñu xoolee suñu xel dal ci ah, te am xel moom maanaa booy ndax sa bopp itam sa am xel moom moom moom maanaam ma nga fa doon am xel rek baax na jërëjëf حفيظ سلمة غير مرسلين عن الذين كفروا برسلهم

نحمدك اليوم بام سراجيا ولي خديت دون شك هاجيا ناجيتك اليوم بام سراجيا ولي خديت دون شك هاجيا أغفر لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من همدا asalaamualeykum wa rahmatullahi wa bokki dëkk bi ñi ngi leen di nuyu bokki gan ñi ñi ngi leen di nuyu bokki dëkkandoor yi ñi ngi leen di nuyu muy way ñaale yi mboolem fu waay jógee rek ñi ngi lay nuyu bu baax ci ndigalal sunu sëriñ alaaji xaadim ka ci kàddug ñi nga xam ne ñooy yore commission jumaa ji ñi nga xam ne ñoo koy saytu di yëkkati ay kàddu rekk te mooy gannaaw bu ñu leen joxee suñu nuyoo rek ñu daal di présenter leen li nga xam ne fa ñu bugg a jaarale jotaay bi maanaam ñu fas yéene rek xamal leen tey jii yéen a ngi teew ci ndaje moo xam ne li ko waral mooy dañoo niseer jumaa joo xam ne dañ koy jaamoo yàlla muy sembul ci diina lislaam sembulu lislaam boobu nag ñu fas yéene amal tey ci dëkk bi ñuy wax Kër Daawut moo tax ñu dajale fi ñépp nag fas yéene rekk tàllal suñuy loxo mbooleem suñuy kilifa di sàkku ci ñoom ñaan ak sàkku ci way jegeñaale yi ak dëkkandoor yi ak gan ñi ñëpp ak gan ñi ñëpp nag pour rek ñu defal ñu ñaan lii nga xam ne ñi ngi koy tàmbali rek ñu tàmbali ko ci bisimilahi àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ah suñu borom mën na lépp te bu ngeen ñaanee rek yàlla dina dégg seeni kàddu te danañu ko nangul programme bi nag nii la tëddee daanaka euh, waxtu wi dafa xaw a lekk lu bari kon bu ko defee daanaka dañu daal di gàddal gàttal lépp rek yëkkati kàddu gi rek jox ko kenn ki nga xam ne moo yore kàddu ñi nga xam ne ñoo eh, yore comité bi ñi nga xam ne ñoo war a saytu jumaa ji liggéeyu jumaa ji ñu jox leen ñi nga xam ne si ñoo yore liggéeyu jumaa ji rek ñu yëkkati kàddu wax ci commis kàddu commission bi su ñu paree rek ñu jox sëriñ bi su paree ñu jox gan ñi fi teew ku ci am ay kàddu mu sànni ko ci lim na programme bi tëddee ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ku ñu wax Bañes jàlloo yow lañuy jox kàddu gi mën nga agsi ah, leeralal nit ñi nag li nga xam ne moom la commission bi tëddee ak li ko tax a jóg. sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ndokkeel suñu kilifa suñu bunt tey ci Sëriñ ci barab bi di Cheikh Baye Khadim nga xam ne mu nga jóge bu Tuubaa ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndal may wax nag ci turu commission bii nga xam ne ñooy saytu jumaa ji di ay ndaw di ay kilifa yu fasantikoo ci yàlla jóg ngir liggéeyal yàlla loo xam ne wax dëgg yàlla lu rëy la ci ay ngone yu ndaw di ko def ak ay mag yu am di leen jiite ci njiital ki nga xam ne nag mooy Serigne Cheikh cew mooy président bi man nag may coordonner lépp wax dëgg yàlla fi ñu dooree ba yegg si fii buñ ko bëggee wax dafay gudd waaye li ma leer mooy ndaw yi dëkk ci dëkk bii nga xam ne commission bi moo leen ëmb amul góor amul jigéen amul mag même borom kër yi wallahi la azim lépp loo xam ne liggéey la ci tool yi sax def nañ ko ngir def ko ci jumaa ji waaye borom kër yi saa yoo xamee ne ndaw yi futeeku nañ jëm ca tool ya borom kër yi kenn ku ci nekk da nga génne sa ñaq togg añ yëbbul ko ndawee ci tool ya kon dëkk bii amuñu seeni i pay yàlla moom seen fay yàlla yàlla fay yaar bi ndax koole mboolem koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi muy góor muy jigéen kenn ku ci nekk def nga saw ñaq ci barab bii pour nu ñu def ba mu taxaw waaye nag dañ koy gërëmee sëñ Sidi Muxtaar Ka mii ndax keroog bañ waaxoo commission bi ñëw ci moom ne ko dañoo bëggoon jumaa ji incha allah ñu jaayante ko seet nuñ def ba taxawal ko moom mu rafetlu ko lool bég ca lool ndaw yi kontaan ci lool ñu futteeku ci lépp suuf sii ngeen jàkkaarloo ci kii bi benn bés la ko xale yi xëyti bi mool ci trois tonnes yu manqué yaakaar naa suma juumul dajale lu mat un million boo xam ne manqué na tuuti kon ñooñu te lépp ñu ngi ko liggéey seen ñàq lañ ko liggéey kon ñu ngi ñaan yàlla ndaw yooyu ñoo xam lañ bëgg yàlla nañ ko yàlla ak sëñ Tuubaa defal yaara bi yàlla nañ ko yàlla ak sëñ Tuubaa defal yaara bi sëñ bi nga xam ne ñoo jógee Touba commission bi ak dëkk bi góor jigéen mag ndaw ñëpp gërëm nañu leen surtout nag Baye Xaadim mi nga xam ne suñ ko tuddee tudd nañ mbooleem ñi nga xam ne ñoo ne ci ñoo jógee Touba te ànd ak Baye Xaadim ndax Baye Xaadim ñu ngi lay xamal ne la sa ñëwu tey bi ak mboolem ñi nga àndal kontaan nañ ci bég nañ ci te mbégte moo xam ne yàlla xam fu mu commencé moo xam fu mu yem waaye ñun xamuñ sax fan la commencé waaye xamuñ fu mu yem encore Baye Xaadim nag mu ngi ànd ak euh, sëriñ Cheikh Bintu Ka di doom ci dëkk bii waaye di kilifa yi nag ci dëkk bii ku baax ne ci doon Baye ànd ak sëriñ Cheikhouna Ka di doom ci sëñ alxaaji ka bàcc bu tañ mu ngi nii toog kenn ku ne xam na ne baayam jàmbaar la woon ca xare islaam moom i tamit ñu teg ca eh, sëriñ Mamoun Sarr sëriñ Mamoun Sarr moom itam mu ngi ci jotaay bii toog eh, sëriñ Abdul Ahad Mbakke yàlla na fi yàgg te wér soo gisee ma wax ne yàlla na fi yàgg te wér mooy tur wi ko dippee moom it mu ngi ci barab bi toog Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngi ci barab bi toog ibnu Cheikh Moustapha Bachir ak Serigne Moustapha Ka bu bu alaaji Cheikh Ka mooy mu ngi ci barab bi toog ak njaboot ak Serigne Issa Ka si njiital Cheikh Ahmed ak mboolem ay rakam teew nañ ci barab bi di góor jigéen mag ndaw ngir fekkee jotaay bii nga xam ne ndaw yaa ngi ko préparé lee ngir góorgóorlu ngir liggéeyal borom bi subhanahu wa taala yal na jëm ci kanam waaye yàlla bu mu jëm gannaaw yaa rabbi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ñëpp kontaan nañ bëgg nañ salaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñi ngi jox kàddu gi sunu sëriñ suñ xalifa sëriñ alaaji xaadim ka moo fas yéene jottale ay kàddum bisimilah mbokk yi bay Xaadim Ka mi ngi leen di nuyu nee na asalaamualeykum wa rahmatullah nee nuyoo bi mi ngi koy njëkkee ci jiital ci sëñ Abdoulaat Mbàkke mi nga xam ne moom lañ fi xoolee jëmmi sëriñ Touba kon bu ñëwee fii jiital ñu ak ñi àndal daanaka jotaay bi lépp dafay daal yéwén bu noppee ci loolu mi ngi sant wëllëre yi ak mbokk yi jiital ci ñaari doomam yi di sëñ Cheikh Bintu Ka ak sëñ Cheikh Sidi Ka daanaka fu ñu nekk fu ne bu ko neexoon mën na faa bañ a toyaw te lépp dana mat ndax noonu lañuy ñuy doxee saa ne kon mi ngi leen di sant di sant mbooloo mi nga xam ne gannaaw yàlla ñoom ñoo tax mbir mi taxaw di leen xamal ne liggéeyal yàlla la liggéeyal sëriñ Touba la loolu nag kenn mënta def lu ko ëpp ci àdduna sëñ Cheikh bintu Ka nag bi nga xamee ne pare nañ ba waaj jëm si ci barab bi xamal na ma ne fàggu na ab lim boo xam ne bu ñu agsee mu teg ko ci loxoom moom Baye Khadim mii ñu daal di koy barkeeloo ci liggéeyu jumaa ji ñu fas yéene jëm bi ma waxee loolu man itam maag sama waa kër ñu fàggu ab lim moom tamit te xam naa it ñépp noonu lañu fas yéene def ñu ko ciy def ngir barkeelu te te doon ak ñaan di ñaan sëñ Abdoulaye Mbacke mii mu tàmbalil ñu lépp te bu ko tàmbalee dana am barke mu ñaanal ñu ci ñu àggale ko ak jàmm bu yàgg yàgg yàgg jërë jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen Xaadim noo ngi lay nuyu. du nuyu njaboot gi yëpp eh, di wax leer rabbil alamin man sama jotaay fii lu fi am solo la am naa ci yëg-yëg lool am naa ci yëg-yëg bu rëy rëy rëy bu jëkk bi mooy pas pasu taalibe bi nu seq sëriñ bi la nu seq sunu maam sëñ seex bokk ci ñi sampoon yoon yi kon moo doon ab jàmbur it bu ma dikkee dina am yéeg yëg ci moom waaye mu mel ne bi ma amee yëg-yëgu pastaf pas pasub taalibe googu nga xam ne sunu maam Seex ka dañoo bokk yoon yi mu bokk ña ko sos maam boobu yëg-yëg maam beneen yéeg yëg boo xam ne ci biir loolu la nekk te loolu sama deret la nekk si Ibrahima Sarr Njaañ dëgg mag sëñ Seex kala ah ñi xam sëñ Seex xam biiram xam nañ ko ba koo xam ne nu mu asalaamaaleykum nuyoo léegi sëñ Ibrahima Sarr Cheikh Bara Sarr fii moo xam ne mii mosut a gis ko sant Sarr te sama maam lañ ko tuddee. loola yëg-yëg bu maa ngi yëg ma sant yàlla nag te rafet ci njort loolu firnde la ci. ma xam ne kon Cheikh Bara ma defoon loo ma tax siñ sakka defoon loolu bu yëgee sama suñu borom yëgal ko jotaay bi dina ci bëgg Cheikh Bara it pas-pasam diggam ak sëñ bi ak sëñ seex mi nga xam ne bu ko jàpp sëñ bee tax daa mel ne sëñ seex day fay bor ndax sama bajjan sono su saar fasu fasu naaru góor loog sëñ Tuubaa seex bi saar boole jox ko sëñ seex mu jur sono sooda ka waaw kooku sëñ seex bu demee bay koy tuddee doom yaakaar day fay bor ba kon alhamdulilaahi rabbil aalamiin euh, rax dolli ñun ñi xam yàlla dogal na nu doon ay mars yàlla boole na ci baatin téeguñu ko ndax xaritoo nañ lu yàgg tee xam ne luñ seq ndax ay ndax gone yu euh, daje ñëpp xam ne dañuy ànd suñ diggante bañ dem ba mag yi jëm suñ diggante doo ko leer waaye nii ñu ànd man la mag ñu àndi woon alhamdulilah li ngeen tàmbali yàlla na àgg lii nekk seen loxo te muy liggéey mag yàlla na yàlla sàmm leen ba li ngeen ci war def ngeen def ko bàyyi xaar noo ngi lay suñu kàddu du mën a sori ndax sëñ Abdou Lahad mi ñu àndal muy sëtu sëñ Tuubaa te jataay bi li muy rëy rëy ak mboolem ak yëg yi bi li muy rëy rëy ñoom waa kër gi bañ ko yëgee dañoo mel ne dara xewatul sëñ Abdou Lahad mi rek lañu yëg kon man mi topp ci gis nga gannaaw sëñ Abdou Lahad man waxi noppi kon man bokk déglu sëriñ Abdou Lahad wasalaamaaleykum bisimilah mbokk yi sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Xaadim ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp ak mbokki julli yi fi teew yëpp di amaat mbégte mu réeti ci jotaay bii ñu fekkee ak mbett mii ñu ci am itamit sëñ Mamoun dafa soriwut sëñ Mamoun dafa soriwut waaye ba ñuy ndaw di dox ba sëñ Seex mi bàyyi sëriñ indi fii waaye ba ñuy ndaw di dox ba sëñ Seex mi bàyyi sëriñ indi ko fii defoon nañ jóg goo xam ne jógu gone rek la woon defoon nañ jóg goo xam ne jógu du tànk la rek la woon ñëw di soññ suñu xarit bu ne fii fekk booba bàyyi sëriñ samp na ko fi ñu ñëw bëgg ko wéttali soññ ko ci ndigal loola waaye fekk fi bàyyi sëriñ mu bokk mu nekk ca mag ña moom bañ fi ñëwee dafa mel ni sëñ Basiru moo ñëw ci dëkk bi xamoon ci lu baax lépp ko ngir lépp loo xam lu mu xamoon ci lu baax lépp def na ko ngir ñun. te boobu wax dëgg yàlla. te te boobu wax dëgg. jegewuñ foofa sax loolu taxuñu jóg. jegewuñ foofa sax ndax loola taxuñu woon a jóg. xam naa kon jotaay bii. waaye xam naa kon jotaay bii. moom la ñu bàyyi sëriñ doon soññee. moom la ñu bàyyi sëriñ doon soññee. ndax ñoom seen mbir dara du asaar du ci nen fa ñuy teg seen bët yaatu na te sori na lool sori na lool kon nag ñi ngi am mbégte ci jotaay bii kon nag gannaaw bàyyi sëriñ réeloon na jotaay bii ba suñ tànk yooya mu jàpp ne sëñ Basiiru moo ñëw ci dëkk bi kon nag ñun tamit nañu barkeelu tey xam ne bu ñu teewee ci jotaay bii nañ weesu lépp te xool sëñ Sàmba Tukulóor ka ak seexul xadim bu fekkonte ne am na aw lay wuñ mën a layal sëriñ bu fekkonte ne am na aw lay wuñ mën a layal sëriñ bi dañuy wax ne sëñ Sàmba Tukulóor na ci dañuy wax ne sëñ Sàmba Tukulóor ka kese képp dong doy na ci doy na ci layal darajey sëñ bi doy na ci layal darajey sëñ bi ndax ba dara doonagul dara ndax ba dara doonagul dara moom sëñ Sàmba moom sëñ Sàmba doon lam doon ci lislaam doon lam doon ci lislaam ak ci diine ak ci diine ak ci tarixa ak ci tarixa yàgg naa tax Cheikh Seydou Mokhtar Ka ne ko ba ñuy làmb yéen a doonul yàgg naa di wax Cheikh seedi Mokhtar Ka ba ñuy ànd ba ñuy làmb te dajaguñ. ba ñuy làmb dajaguñ. yéen a doonoon suñuy yéen a doon suñuy sëriñ. waaw kay sëñ sëñ Samba Tukulóor moo nekkoon Seyxul Daxar. ndax sëñ Samba Tukulóor ka moom moo nekkoon. Seyxul Daar. Seyxul Xudar. Seyxul Daari. Seyxul Daari moo nekkoon Seyxul Daari. moo nekkoon kilifa kër gi. moo nekkoon kilifa kër gi. kilifa diine Xaadiriya. kilifa diine Xaadiriya ci Sénégal. kon cër boobu la amoon. kon cër boobu la amoon. ci xam-xam ba. ci cërub yàlla ba. ci wilaaya ga ci wilaaya ga ba lépp moom nag bu mënee jël. ba lépp moom nag bu mënee jël. doomam doomam. jox ko seexul xadim jox ko seexul xadim. mu di ko jàngal mu di ko jàngal. ba seexul xadim woote yoon wi. ba seexul xadim woote yoon wi. ay seex Ibra Saar ak sëñ Adama Gueye ñoom nekk fa. ay seex Rafaal ak sëñ Adama Gueye nekk fa. ak seex Ibra Saar ñoom. ak seex Ibra Saar ñoom. ñu jàpp ne gone gii baayam da ko fee joxe woon ngir jàng. ñu jàpp ne gone gii baayam da ko fee dafa joxe woon ngir ab jàng. loolu lépp dañ doon wane sëñ bi rek booba. loolu lépp booba day dañ doon wane sëñ bi rek. wax ko ba ba sëñ bi ne na ko delloo sëñ Samba. wax ko ko ba sëñ bi ne da koy delloo sëñ sàmba ndax amatul jot ak jàngale. ndax amatul jot ak jàngale. sëñ Samba ne ko jàng ma jox la ko. sëñ Samba firndeel ko ne ko jàng taxutoon ma jox la ko. kon loolee sëñ Samba gisoon. kon loolee sëñ Samba gisoon. ñun ñun la ko doon ñun ñii la ko doon wan. ndax moom booba la mi am am na ko lépp. kon nag alhamdulilah. dem ba nga xam ne. buñ mënee dem ba nga xam ne. jeexitu sëñ Samba moo nekk. jeexitu sëñ sàmba moo ne fii. te yaatal liggéeyu sëriñ bi moo ko fi indi. yaatal liggéeyu sëriñ bi moo ko fi indi. ñu dox ba fekkee ko. ñu dox ba fekkee ko. Baye Serigne sasoon na ci sas woowa. Baye Serigne sasoon ñu ci sas woowa. ndax gisoon gisoon ñu. ndax gisoon ñu. ndaw ñuy ay ndaw. bëtam jéggiñu bëtam jéggiñu ba teg ko ci sëñ ba teg ko sëñ Basiiru ba mu mujj doon suñu wëllëre wu wér ba mu mujj doon suñu wëllëre wu rëy wu wér fu mu toll mu di ko seedeel sëñ Seex fu mu toll mu di ko seedeel sëñ Seex Ka kon defe naa jotaay bi rek lañu doon soññ kon defe naa jotaay bi rek lañu doon soññ mag ñi nag wàcc nañ mag ñi nag wàcc nañ alhamdulilah ñun itam sant yàlla alhamdulilah ñun it nañ sant yàlla bu wér ndax fu ne la fa nekk rek moo fay nekk la fa nekk rek moo fay nekk matuñu ko matuñu ko mënuñu ko mënuñu ko waaye yàlla tawfeexal ñu ñooy ñoom waaye yàlla tawfeexal nañu ñuy ñoom alhamdulilah yàlla na ñu yàlla yéegal suñu lépp ci seen jëf jooja kon kon mbett miñ miñ amoon ci digg bi ñu fekkoon baay sëriñ moonu dalaat tey ndax sëñ maamun mii maa waxoon ak moom ne ko danaa jaar Kaolack nañ jaar ci dëkk ba sëñ Cheikh seet sëñ Cheikh Ka nañ jaar ca dëkk ba seet sëñ Cheikh Ka. mu ne ma waxtaan gannaaw bi. ay bés gën mu ne ma gannaaw gi te loola aw ay bés ba la ñu génn la woon. mu ne ma waxtaan naa ak sëñ seex Bintu. mu ne ma waxtaan naa ak sëñ Cheikh Bintu. mu ne ko bis bis bii wi ngeen fi war a jaar. samedi bii ngeen fi war a jaar. dañoo am ñaan cant gu ñaan gu ñuy def. dañoo am ñaan gu ñuy def. bu ko defal sëriñ bi. bu ko sëriñ bi. sëñ Maamun wax ma ko. sëñ Maamun wax ma ko. ne ma noo def. ma ne ko loola kay loo xam ne da ngaa waroon a jógee ko feneen dem fa kon loola ab soññ la ci ñun kon nañ fa def ba biig mu ne ma mu ne ma sëñ xaadim kat dafay ñëw sëñ xaadim dafay ñëw di jiite tegu xeeru jumaa di jiite tegu xeeru jumaa te ñoom nee nañ gannaaw da ngay ñëw ci bis bi te ñoom it nee nañ gannaaw da ngay teew si ci bés boobu dañ lay xaar ba ñëw dañ lay xaar ba nga ñëw ma ne ko ëpp naa def ndax waxtu wu ma fay ñëw dana fekk nit ñi tasaaroo mu ne ma ñoom bàyyi nañ lépp nag toog di la xaar loolu nag lu mat a sante yàlla la mooy pas-pasu mag ñi du deltu gannaaw mukk ndax la bàyyi sëriñ gisoon rek moom la suñ xaadim gis gisut suñuy jëmm gisut suñu teewaay sëriñ bi rek la gis jotaay bi yàlla na ko yàlla yéege. kon nag jotaay bi yàlla na ko yàlla yéege. ci jotaay yu mag ña. ci jotaay yu mag ña. am ci mbettum ñaari yoon. am ci mbettum ñaari yoon. fekk leen fi ngeen bég ngeen bég ci dikk gi rek. fekk leen fi ngeen bég ci dikk gi rek. dafa doy sëkk dafa dafa doy sëkk. suñ diggante ak sëriñ bi suñ diggante ak sëriñ bi. bu ca loola dollikoo nag. bu ca loola dollikoo nag. ngeen di liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa ji. ngeen di liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa ju mel nii. ñu war koo teewee. ñu war koo teewee. alhamdulilah cant ñaari yoon la. ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba. mu kattanal leen. teewal leen xeewale leen xeewale leen bañ fekkee jotaay bii ba ñu fekkee jotaay bii di ko julli di ko julli tam yàgg lool tam yàgg lool te barkeel noo ngi bég bu baax itam noo ngi bég bu baax ndax mënuñoo dox lu gën lii ndax mënuñoo dox lu gën lii xentu sëñ bi rek xentu sëñ bi rek ak njeexitu sëñ bi moo ñu tax a jóg ci àdduna mooy suñu dund mooy suñu lépp mooy suñu te defe naa bu mel nii te defe naa bu mel nii doy na soññ ci ñun mooy seex sëñ seex ka moom ab seere la ab seere la ab misaal la ab misaal la ci sëñ Tuubaa buñ ko doon jàngale ci sëñ Tuubaa bu fekkoon ne dañ koy jàngale boo ne sëñ Samba Tukulóor ka moo jur sañ Cheikh ka. boo ne sëñ Samba Tukulóor ka jur sëñ Cheikh ka. ku xamul nag xamoo. ku xamul nag xamoo. waaye ku xam. ku xam. da nga xam ne Samba Tukulóor ka kum nangoo jox doomam. da xam ne Samba Tukulóor ka mañ xamoon bu kum nangoo yëkkati doomam jox ko ko. am na leneen lu xew. am na leneen lu xew. loolu ñun nag nañ sant yàlla. ñun nag nañ sant yàlla. ba nga xamee ne. ba nga xamee ne. ci loolu lañ judd. ci loolu lañ judd. Eh, noo ngi ñaan yàlla. noo ngi ñaan yàlla. taalibe yëpp. taalibe yëpp. yàlla kàttanal leen. yàlla kàttanal leen te ngeen soññuwaat bu baax itam. te ngeen soññuwaat bu baax itam. ndax lii niru na lu yomb. ndax lii niru na lu yomb kat. waaye ngëneelu yàlla rek ko mën a maye. waaye ngëneelu yàlla kese moo ko mën a maye. ndax li ñuy ñàkk ñàkk solo. ndax li ñuy ñàkk ñàkk solo. ci suñu suñu lot. ci suñu lot. liñ fiy teew lépp. liñ fiy teew lépp. ku ñu tudd. ku ñu tudd. tudd Serigne Touba. tudd Serigne Touba. loolu doy na sëkk. ci suñu àdduna ak suñu àllaaxira nañu soññuwaat bu baax te xam ne mag ñi li leen taxoon a ñëw fii. mag ñi li leen taxoon a ñëw fii. mooy yaatal sëriñ bi. mooy yaatal sëriñ bi. ak dund ko ak dund ko. ak wane ko ak wane ko. loola nag. ak loola nag. buñ demee ba judd ca. buñ demee ba judd ca. seeni sët di ko dundal. seeni sët di ko dundal. sëti taalibe yi ànd ko ak ñoom. sëti taalibe yi ànd ko ak ñoom. feddliwaat laxasaay yi nañ feddliwaat laxasaay yi xam ne ñoom la leen taxoon a jóg xam ne ñoom la leen taxoon a jóg yéene rek la woon yéene rek la woon waaye liggéey bi ñoo ko yor waaye liggéey bi ñoo ko yore ndax meññet mi tey lay feeñ tey jii lay feeñ tey lay gën a baax tey lay gën a baax suba lay gën a baax suba lay gën a baax ci lay ëpp doole ci lay ëpp doole te yàlla du ko jaarale ci kenn te yàlla du ko jaarale ci kenn ku dul ñun ñii nañ sant yàlla bim ñu boolee ci sëñ bi boole ñoog sëñ bi santaat sëriñ bi itam joxaat ko suñu bopp laxasaayuwaat fexe ba lu fi mag ñi bàyyi woon kenn ku ne fa nga ne nga fexe mu jëm kanam te yoon wa rek moo ne nii mooy sëñ xaadim mii ànd koog njabootam gii toog ñoo ngi rafet njort bu baax ci ne la sëñ Seex ka gisoon ba tax muy sanc fii la sëñ Seex ka gisoon ba tax muy sanc barab bi yàlla na feeñ ci yéen yàlla na ci yéen ñoom dañuy dañuy tàmbali gi dara lay doon waaye lay tax la tax ñu di ko def waaye la tax ñu di ko def yàlla tàmbali tey moom la ñu tàmbali tey nag yàlla na yàgg lool yàlla na yàgg lool te barkeel te barkeel te nañ ci njort bu baax te rafet nañ ci njort bu baax it maa ngi koy misaal ci ne maa ngi koy misaal ci ne Cheikh Mouhamed Bachir. Cheikh Mouhamed Bachir. bi mu sancee Saalum gii. bi mu sancee Saalum gi xam naa soriwut fii ci Daaru Pakacaar. fii mi ngi nii rek di dégg li ñuy wax. ci Daaru Pakacaar gi. yàggoon na fi lool. yàggoon na fi lool. demul Touba. demul Touba. ba Maam Mor Sam. ba Maam Mor Sam. génn àdduna. génn àdduna. mu dem tuuba mu dem Touba. ànd ak Cheikh Moustapha. ànd ak Cheikh Moustapha. ñu dem Njaareem. ñu de ñu dem Njaareem. di jaale sëriñ bi. di jaale sëriñ bi. ba ñu àggee. nettali bu wér la ne sëñ Abdou Lahat moom ko nettali. nettali bu wér la ndax maa ngi ko jëlee ci làmmiñu sëñ Abdou Lahat. nee di di bëgg dafa bëggoon sëñ Basiru toog ci wetam. Cheikh Moustapha dafa ba ñu ba ba noppi ci sëriñ bi. ba ñu jaalee ba noppi ci sëriñ bi. Cheikh Moustapha di ko kalaame ak sëriñ bi. Cheikh Moustapha ko kalaame ak sëriñ bi. ne ko mi ngi nii jógeewul Touba. ne ko mi ngi nii jógeewul Touba. bu yàgg ba tey ma nga Saalum. bu yàgg ba tey ma nga bëgg sëñ bi digal ko. bi digal ko. mu ñibbisi ci mu ñibbisi ci moom. sëñ ba Basiiru xam naa yàgg na ak sëriñ bi moom itam. sëñ Basiiru xam naa yàgg na ak sëriñ bi moom itam. xam na ay femam. te xam na ay femam. mu jël ab musuwaar bu def suuf. mu jël ab musuwaar bu def suuf. tàllal ko sëñ bi ne ko damaa demoon damaa nekkoon biir Saalum. tàllal ko sëñ bi ne ko damaa nekkoon biir Saalum. samp sampoon sañtoon fa daara. sañtoon fa daara. ngir yàkkale liggéey bi. ngir yàkkale liggéey bi. andi woon naa suuf sax ngir bëgg nga ñaan. andi woon naa suuf ngir nga defal ma ci ñaan. sëñ bi teg loxo ci suuf si. sëñ bi teg loxo bi ci suuf si. ba mu daata mu ne ko xanaa foofa suuf ak suuf ndox amu fa. ba mi laata pare mu ne ko xanaa foofa suuf ak ndox suuf ak ndox amu fa. mu ne ko aha kay mu ne ko aha mu ne ko suuf ak ndox. mu ne ko suuf ndox. saa borom digal na leen. sa saa borom digal na leen. fu ñu sama njaboot nekk. fu sama njaboot nekk. te nekkee fa nañ fa war a nekk. te nekkee fa nañ fa war a nekkee. ñu def ci ñoom lañ war a def. ñu def ci ñoom lañ a def. kon. dara jëru jaaxle kon nag dara jëru jaaxle li ma ta sant yàlla rek li ma ta sante yàlla rek fooy dem sëñ bi tax la faa nekk fooy dem sëñ bi tax la faa nekk tax la faa dem tax la faa dem faa sax tax la faa sax tax nga nekkal fa sëñ ba tax nga nekkal fa sëñ ba ci zaahir ak ci zaahir bi ak baatin bi sëñ bi moom nee na suuf ak ndox sëñ bi nee na suuf ak ndox fuñ nekk fuñ nekk ak njabootam ne fa ak njabootam ne fa danañ def ci ñoom liñ war a danañ def ci ñoom liñ war def ci ñoom kon nag man ngeen a rafet njortu ci ne sanc bii nga xam ne sëñ Tuubaa tax ñu sanc bii nga xam ne Serigne Touba dong kese moo tax ñu def ko. yaatal liggéeyu sëñ yaatal liggéeyu sëñ bi kese. moo tax ñu def ko moo tax ñu def ko. muy dox ba agsi ci seen loxo. muy dox ba agsi ci seen loxo. doonoon daara ju tuuti. doonoon daara ju tuuti. dem ba doonub dëkk. dem ba doonub dëkk. ngeen xalaat fee def juma ngeen xalaat fee def juma. ku ne xam na ne sant ngeen. ku ne xam na ne sant ngeen. waaye na ngeen xool fu gën a kawe. waaye nag na ngeen xool fu gën a kawe yokku leen. sëñ bi. kanam rek la jëm ci kanam rek la jëm. yal na ko yàlla sottal. yal na ko yàlla sottal. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. tam jaar ci suñuy loxo. sëñ bi nangul ñu suñuy jëf. sëñ bi nangul jëf. zaahiran wa baatinan baax a leen di bégee bu baax a baax tey ñaan yàlla suñu tànk yi tey ñaan yàlla suñu tànk yii la bàyyi sëriñ gisoon la bàyyi sëriñ gisoon yàlla nañu yàlla yéegee foofa yàlla nañu yàlla yéegee foofa ndax xam naa ne ñun woyof nañ lool ndax xam naa ne ñun woyof nañ lool woyofaloon nañ ko woyofaloon nañ ko waaye ba mu ko diisalee ba léegi waaye ba mu ko diisalee ba léegi saa yu ñu dikk fii saa wu ñu dikk fii suñ pas-pas dana soppeeku suñ pas-pas dana gën a yokk dana gën a yokk te loolu rek am solo te loolu rek moo am solo kon nag sëñ xaadim ñu ngi koy yeesal ci yow la fi andi woon sëriñ bi rek indi fi mag sëriñ bi yëpp loola rek la ñuy xeeñtu ñu ngi koy feddali yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla na ngeen ko taxaw ba li ci sëriñ bi diggoon sëriñ Seex Ka ñu àgg ci seen loxo barke sëriñ Touba jërëjëf waay agsi na léegi ci barab bi ñi ngi sant maam góor li di suñu rakk sëriñ Saam di suñu rakk sëriñ Moustapha Ka Sadio di suñu rakk Baye Ndaw jógee ba Daaru Musti di murit saadix sëñ Fàllu gàmmu ak ñi mu àndat man nag samay kàddu bu ñu fanaanee jàng ba fajar balaa sëñ bee ñaan ca lay wax samay kàddu kon nag dañuy jóg léegi dem ca barab ba sëñ bi teg xeer wi la sëñ Touba waxoon sëñ Fallou na nga ko teg ci suñu kanam ne ko liggéey baa ngi noonu ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi ñun tamit nañu fasoo loolu rek ku ñëw fekk ñu ci ku dem bàyyi ñu ci buñ demee ba fajar nag su boobaa balaa sëñ bee ñaan ci laay joxe sama kàddu kon damay jox dañuy jox Abdou Salaam rek mu am information boo xam ne moom lay jàllale rek sëñ bi ñaan ñu àndandoor ñu ñëpp dem fa ñuy tegee xeer premier paire bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye xalifatu maam Cheikh ñoo ngi lay ziar di ziar Mbacke Balla ñoo ngi lay ziar bu baax di nuyu Serigne Cheikh Bintou suñ ko tuddee yóbbaale na njabootu maam gi yëpp euh, tey nag bésu mbégte la bésu euh, teg xeer juma macha allah ñaari bés bés bi ñaari ñaari mbir la làmboo muy tegu xeer juma ji ak cant gi euh, kon ñu ngi ciy ziar bu baax Serigne Saliou Sow mooy jàllale conférence bi dañoo bëgg bu ñu jullee timis ba pare mbooloo mi yëpp nañ teewaat bu kenn bougé déglu Serigne Saliou Sow yu am solo lay yëkkati. ñoo ngi jégluwaat bu baax si kàddu yu sëriñ bi alhamdulillahi ala alxaqaidi walfiqhi wal insani nima xaalidi دين النبي المنتقى أعلاني ولسواي سيق من خلاني يقول لله الكريم الباقي ذو الأراضين الصبر والاتباع نفعا بلا ضر ولا حساب وعادة عادت إلى حساب الذي يمنى المباحات بقدر إلى الجنان والتصفي للزمن لم يلقى كليل خير